laajte rek damay tënk ci wolof mun na gaaw parce que ñun jot nañ waxtaan deux jours ñu ngi nii di waxtaan nañ ci lepp euh remerciements yi ak ngeureum yi je pense que depuis démb ba légui ñu koy def parce que nga woté acteur de la pêche les 41 CLPA du Sénégal ñep ñëw tok nek fi ci salle bi tous les acteurs de la pêche ñu ngi fii ci salle bi je je pense que donc ça c'est une première et c'est quelque chose que xam ne ko war saluer loolu yëpp nag seen secteur bi moo leen ko moo leen ko ba Matam ñiy jógee ba Kafountine ñëpp a ngi fi kenn vraiment ñu ngi leen di un travail seen taxawaay et seen accompagnement bi pour que secteur de la pêche nous ko son excellence le président Macky Sall bëggee ak fu mu ko bëgg a mu une réalité loo gis nag vision lay commencer.

bi nga xam ne moo nekkoon ak problème Mauritanie président Macky Sall taxawu na ci ma nga xam ne maintenant licence dem na ba ay 10 ans alors que d'habitude chaque année lañ doon joxe licence yi te loolu yëpp nag benn genre leadership rek moo ko permettre son excellence le président Macky Sall ñu ñu am mu am crédibilité ñoo xam ne ko jox cër ba nga xam ne fu mu taxaw wax ñëpp topp ko ci lu mu bëgg te loolu yëpp nag pour askanam di jëm kanam rek donc ñun nag ñu fi toog ñun nga xam ne ñun ñooy ay ay euh, naka lañ ko mën a waxee ay ay baay faalam

ñu jàppale leen ci ñooñu la FONGIP taxawaay boobu la am di accompagner nag ba nga xam ne di financer euh, ba nga xam ne entreprise yu bëri actuellement ñu commencé waat nañ seen liggéey ñu amoon ay arrêt yëpp commencé waat nañ ko banque yi di leen mën a lebal xaalis maintenant nag euh, projet bi euh, kii nga xam ne moom la son excellence premier Macky Sall wóolu dënk ko bànqaas boobu mooy FONGIP ba mu déggee programme bi moom moom ma wax sax si boppam ne ma mais ñun de bëggoon nañ accompagner euh, programme bi pour xool naka ñu jàppale ba pêcheurs yi mun a euh, am yombal pour ñu amee euh, gaal yi ñu waxtaan ci suñu service yi travaillé ci et vraiment yàlla defal ñu ba nga xam ne finalement tey nag ñu am benn financement boo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy signé entre la CIRN ak FONGIP ñu nga xool ne fii ak avant février incha allah le temps que ñu def mécanisme yëpp ñu koy teg comité pilotage bi di pare ñu commencé mun a dugg ci c'est bi Sénégal jusqu'à Matam am comité pilotage a commencer di financer pour ñu euh, le constitutionnel la def kon dama bëggoon ngeen madame Thérèse parce que li lañuy xaar ci son essence président parce que mënon na dem rek di xaar est-ce que man dina mais def démarche bobu ne ki dama ko

Sénégal vers le plan Sénégal émergent merci beaucoup